jël ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal nañ leen bu baax a baax tey nag ñëw nañ amal waxtaan wu yaatu waxtaan wu amaam solo émission boo xam ne nag bu kenn sàcc concept bi les quatre grands lan moo waral loolu lu tax dangeen ko xam tey ñu ngi dalal koo xam ni ñu ngi ko naan Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran defe naa ràññee ngeen ko ci réew mi ràññee ko ci bitim réew di ko gis lenn nag ci ay site internet bu yàggul dara dalal nañ ko fii ci VCB. tey nag ñu fas yéenee waxtaan ak moom waxtaan bu am am solo du yomb nag ndax lu kenn mësul gis wala boog li bariwul ci sëriñ si tey moom la def invité ay kàngam te joxuñu benn thème ñu dama bëgg li nekk ci biir lan mooy ñaan fétiche lan la fan la jógee lan moo ko wutileeg ñaan lu tax ñaan léegi euh, ñu bari dugg ci te mu bari ko ci xool loolu lépp daal di dugg ak moom du yomb ndax question yi ñu doon xaar lañ ko fas yéene jox ay numéro téléphone am mi ngi noonu di affiché ci bi bu ñu ba ci biir di ngeen xam moom mooy kan daañu waxtaan it leneen ci actualité yoo xam ne ñu ngi koy dund ci société bi moom dana ci am xalaat ndax ku am culture générale la macha allah. ci bokk Mouhamed Diop def naa ñëpp xam nañ fële ci seen TV mu fa def liggéey bu ama am solo di journaliste bokk na ci gan yi tey di sama naataango ci milieu bi tey dina bokk ci waxtaan yi Samir Seck ñu gën ko xam ci Talla Seck ñu gën ko xam ci Samir moom it nit ñi ràññee nañ ko ci rajo yi ak ci yi. ak rawatina fële ci Diassi gi TV ak ci Salam TV moom it ci waxtaan yi la bokk Mouhamed di suñu naataango moom it dañ koy bàyyi mu nuyoo ak euh, internet yi ñu daal di dugg ci waxtaan wi daal di dalal sëñ daal doog a dalal sëñ bi Mouhamed bisimilah. sëñ Souhaïbou maa ngi lay nuyu bu baax a baax bi yow plateau euh, nuyu bu baax a baax sëriñ daal man mbégte loolu wuy euh, concept bi ndax coow li bëri na ci mel ni ñoom ndax li ñuy wax am na ndax li ñuy wax dëgg na am déet ndax li ñuy wax mën na ci ñoom moo tax boo dajalee ay wax waxkat wala ay laajkat donc yaakaar naa ni te joxoon ne la ñuy laaj euh, tontu li war naa am solo donc moo tax ñoom euh, tey bu yomb xam naa ndax bëri ci ay laaj yoo xam ne bëgg naa ko laaj seen bi euh, ci ñoom ci ñuy yëngatu ndax coow li bëri ci jaajëf Mouhamed defe naa ne miin ngeen kàddu bi xam ngeen jëmm ji fële ca seen TV Samir Seck moom itamit Talla ñu xam ko bu baax Talla yooyu ñu bàyyi leen nga nuyoo internet yi ñu doog a daal sëñ bu mag. auzu billah bismillah alhamdulillah borom Tuubaa xalifa yàlla lekk maam ñu boobaat ak askanu am nga xamante ni ko waxee sànq ci tàmbali bi rek a am la pour bu ko tëbi jéem ndax ko si jéem te ma tewoo place bi tamit gàllankoor mën na la kon nag ñu dalal ki nga xam ne moom lañ doon xaar ci toogaay mu jëkk macha allah jaajëfal ko nag ci teraanga yi nga xam ni teertoo nañu Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran ñu bàyyi la nga nuyoog internet yi ñu bàyyi la nga nuyoog sénégalais yi ñu des ci waxtaan bi. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, sëñ Sonia bi ñu ngi nuyu. di nuyu Seydina Mouhamed mi nga àndal di nuyu Baye Talla di nuyu itam caméraman yi nga xam ne ñoom ñoom lañ bokkal jotaay bi di nuyu kilifa yi diine yi ci réew mi di nuyu kilifa yi aada yi di nuyu ñu ñuy suivre fii ci réew mi ak bitim réew di leen wax ne aleykum salaam wa rahmatullah di ñaan itam kàddu yi fiy jib suñu waroon defal ñu ci dégg ak topp ak njariñ bisimilah jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bu am solo boobule jaajëf ci teraanga ji ak euh, daral lan moo waral Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran maanaam baatu alquran bi ci dégg ci lu waral lool. waaw sëriñ Souhaïbou li waral Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran mooy man ci alquran lay jëfandikoo ci samay ñaan yi may ñaanal doomu aadama yi alquran nag nekk loo xam ni ndono la ci man. ci lañ ma xam ci lañ xam samay waajur ci lañ xam samay maam amul kenn koo xam ne xam na ma ci lenn lu dul alquran ak ismillaahil azam loolu rek moo tax ñu dàkkante leen ma Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran. jërëjëf Cheikh Ibrahima tey nag bëgg nañu waxtaanee bu bëree bëri bëri waaye kenn mënta waxtaanee xam-xam kenn mënta waxtaanee lasraar te jaaroon ci bunt bi muy seet. Hmm. façon seet ñi nag bëri na ban la ci seen seex. alquran yor maanaam ban nga ci yor yow ban xeetu seet ñu doog a waaw seet euh, li ma ci waxoon baytaala lii ma gis Sénégal nit ñi di ko seetee loolu du seet wax sa xanaat la hmm. ndax seet euh, dafa nekk loo xam ni wax naa ni nga ñaanal nit ki ba ñaan nga nangu nga seetal ko gis ko moo ko gën a jafe ndax seet dafa bokk ci li ñuy wax xëy bu lu nëbb lu nëbb nag neexut a gis ndax suñ borom li ko nëbb su doon lu ñëpp war a gis la mu teg ko ci seen kanam ñu gis ko moo tax seet yii ngeen xam ci système bu Sénégal bi nit ñi di ko seetee di tasaare ay pétaaw ak jël ndox di ko tiim ak bokkut ak seet gi nga xam ne mooy xaqiiqa seet loolu ëpp naa wax fii caméra waaye daal man seet gii may seetee bokkut ak seet yi ñu xam ci réew mi soxna léegi ful nga teg euh, euh, li ne ci réew mi wax sa xalaat la ndax yow sa xalaat la wala da nga da nga néewal seen xam-xam wala da nga bëgg dëggal sa bopp lu tax nga ne loolu wax sa xalaat la. déedéet euh, du néewal seen xam-xam ndax xam-xam moom bu mu mën a doon rek xam-xam la waaye xam-xam yi dafa am ay niveau ndax nit ki du loo xam rek mën nga cee jëriñ nit ñi am na xam-xam yoo xam ni amul benn njariñ yonent bi nag ñun dañu tere ñu jullit ñi loo xam ne dañ koy wutal njariñ ci suñu biir te yii ma gis ci réew mi rasulullah nañ ko tere moo tax euh, dëggaluma ko ci kaw dëggal sama bopp waaye dama ciy gisul njariñ lu ko nit ñi di toppee moo tax ma tegal leen ko fële li nga xam ne nag nit kiy seet ba mën a gis loolu nekkul sax ci nit ki day jàng lool ba xam ko dafay nekk lu suñ borom def ci moom ngir leeral mbir lii rek seet googu nag man am naa gu ma ci xam waaye bu dee yii nga xam ne dañ ko jàng muy ay kamaatara kese ma jàng ko ñi ma cee wax nit lenn ndax duma wér ndax dëggal du dëgg mhm. muy lu amoon solo dinañ ñëwaat ci question yi wàllu féticheur dinañ ci dugg ndax ku jotoon a gëstu bi la ba xam lenn ci xam-xam yu bëree bëri yoo xam ne lenn ci ay nit ñu ngi koy mbubboo di ko doxee di ko waxee ci télévision yi ak di tiital nit ñi ak di ragalloo nit ñi xam-xam boobu lan la ndax jàng na bu ko jàngee ndax nii mu nekkee ci réew mi noonu la loolu yëpp daan di dugg ci kanam du ñu yaatal ndax Mouhamed mi ngi fi am na ay question yu mu dencal sëriñ bi buñ ci jógee taala mi ngeen ñëw ak ay ñu doog a ñëwaat ñun yi ñu waajal Mouhamed kon dañ lay bàyyee ak euh, Cheikh Ibrahima euh, Ndiaye Alquran nga bëgg a ñëw ci mm-hmm. euh, bu man nag laaj bi sama laaj bi dina ñëw dëggan daal def tuuti digression wax sëñ bi xamal ni ana lan moo lan moo sababu ni muy jëfandikoo wàllu liggéey bi wuteeg lool ak ni ko ñenn bi di di di euh, liggéey fii ci Sénégal parce que bari nañ nag ku ci nekk xam nañ na nga mënee gis kër gu fees dell sooy ci ay nit yi bi euh, boo ñëwee pratiquement naam am na ñuy ñëw waaye kër gi doo gis nit ñi bi mel moom ni koy defee ndax option boobu moom moo ko jël wala beneen gisin la ci am sëñ bi waaw xam nga ñaan dafa bokk rek dajale mbooloo ñaan kenn nit a koy def te kenn lay ñaan muy yàlla bariwul bruit moytul foo dem fekk fa bruit yu bari ba pare ñu koy séentu yàlla dégg nga wax bi man nag damay ñaan comme li may def yombul li may am temps ci temps boo xamante ni si ne dinaa ko mën a jox nit ñi bariwul moo tax dajalewu ma nit dajale mbooloo nag nee naa la dafa différencé wu trop ak ñaan yàlla ñaan yàlla ba adduna sosoo ba léegi ñi koy def ñuy wéet la ci seeni jataay ak ci seen jëmm te duñ ñu yomb ba ku jóg gis leen loolu mooy ñi nga xam ni ñu ngi ñaan ñaan gi wér su dee leneen nag moom kenn ku nekk yaa xool ni nga koy defee rek waaye yoonu yàlla dafa am yoon te boo ci tegul doo dem euh, laaj bi dëggantaan Cheikh Ibrahima Ndiaye day ñëw ci Euh, lan moo wutale ak euh, kii jëfandikoo wala kii ñaan ci wàllu werd ak ki nga xam te ni dafay ñaan ci wàllu mbind mooy sëriñ bi nga xam te day jëfandikoo wàllu werd ak sëriñ bi ko bind ndax gis nañu ne Sénégal ñii ñii dem seeti ci bari bari ñoom ñuy jëfandikoo wàllu werd lan moo lan moo sabab bi waaw loolu su ma la koy leeral ci mbirum saayir ñu ngi mel ni élève bu am certificat ak ku am bac bépp sëriñ bi bind wala mu topp ay xaatima ka def yëpp lu ko gën amee bi ah, ça dépend ci mbind mu mën a. mbind mu mën a doon mën lu ko ba soriwul li wax bi ndax suñu borom ci boppam lim def defloo ko yonent bi loolu la nit yàlla yi def te suñu borom dafa ne wala zikrullahi akbaru alxuraan bu alxuraan dag doo dem ci benn aaya bu tombeek suñu borom ni bind leen sango ko waaye yàlla moom ñu tudd leen yàlla jariñoo ko te yàlla day sikkar moom malaayka yi dañuy sikkar rasulullah day sikkar nit yàlla dañuy sikkar mën ñu damay sikkar yoon woo fi ne weneen yoon wi nag day dem des fois du dem te boo yoree ay bagages yi nit jóg ak ñoom paan lor nga leen amul paan xadra ba rek ngay teel ji looloo tax ñun xam nañ ñaar yoonu yëpp waaye bi gën a wér lañ jaar muy wàllu ci tar waaw yàlla mooy faj aajo nit nit du faj aajo nit nit nag buñ la wékkoo wékkee seeni mbir te yow wékkuwoo ci yàlla fenn du ngeen fa dem looloo tax ñun nag ñu wékku ci yàlla laata ñun nit a wékk dara moo tax lu ñu waaye yenn ñu bale ko loolu rek la waaye zikrullahi nag mooy yoon yu wér mooy aqiqatu muhammadiya moom la fi yonent bi bàyyi yonent bi zikkar na nit yàlla zikkar nañ wax naa la suñu borom mi ñu sàkk ci boppam sax day sikkar salaatu ala nabi moom malaayka yi yoon woowu fi ne baay taala yoon euh, may jox son euh, laaj bi mujj bi am na ñu ne sëñ adduna bi ni mu rëbi adduna bi coow bari na loolu yëngu na lool lool lool lool yéen nag xëy na boo leen euh, boo leen lëloo daa ngeen xam lan moo yëngal jamono ji jamono ji ni adduna bi ni mu révé mu yëngatoo ku ci nekk daanaka daal xamoo fan nga jëm nan ngay jëflante ñëpp tiit na lan moo sabab ni jamono ji yëngu. waaw adduna moom bu wàññeekoo rek coono te nit ñi seeni kilifa yi leen yàlla booleel yilif yi yërëmatuñ leen kenn yërëmatul kenn bi ci topp itam dañoo not nit ñi ci di leen force luñ bëggul jamono bu adduna àggee foofu suñ borom tasaare ko bu njëkk sax dafa daan avancé. rasulullaay la ruusee adduna bi bàyyi ko nii waaye bu doon ca jamono yeneen yi dul bi yàlla day effacé boobu commencé beneen melokaan wii adduna mel nag day melokaan wu ñu war a na effacé adduna waaye comme effacé wuñ ko dañ leen di natt ñoom ñëpp loolu buste àdduna bi yërmande dafa amatul ba pare néew gi doole ji liñ leen notee dafa bari ci réew yëpp ci adduna bépp moo tax suñu borom nag yëngal adduna ngir yar leen bu ci paree rek daal koy bàyyi moo waral mu wàcce junoot bi nekk seen biir di jaxase rek ni ko neexee te kenn woon ko maîtriser. très bien sama kàddu la jërëjëf euh, Mouhamed euh, am na solo xam naa jombul di ngay ñëwaat euh, bala ñoo bala ñoo jeexal sëriñ bi balaa ñëw ñun xuus ci laaj yi dañuy bàyyi taala moom tamit ñu ngi fi la nekk taala yow tamit yaa ngi bàyyi xel li ñu laaj suñu diggante ak sëriñ bi yan question nga amoon pour Cheikh Ibrahima Ndiaye. jërëjëf Cheikh Sonia Diop jërëjëf Mouhamed Diop fi may tàmbalee rek damay faral di dégg ci ñu naan. salaatu ala nabi juróom-ñaari xeetu salaatu ala nabi moo am bëggoon nga ko ñun ñaata salaatu ala nabi moo am ak dëgg-dëgg jëriñ salaatu ala nabi lu muy jëriñ ak yàlla lu muy def ci biir. waaw loo xam ne borom xam-xam yi wax nañ ni nit ki farata la ci moom sax mu wax ko benn yoon ci dundam ndax yàlla ko digal yàlla lu mu digal nit rek loolu farat la. Hmm. suñu maam borom Touba nag radiyallahu anhum nee doomu aadama bi bu dee day wër di làmbatu sëriñ ba mu dem di fa sàkku dara mënu ko faa am bu yàggee na bàyyi sëriñ si te dem def salaatu na nabi muy ab sëriñam ndax mën na koo yóbbu ba ci yàlla mën na koo wommat ba dugal ko na mën naa xëcc sawara ba dut ko séet salaatu ala nabi nag nekk loo xam ni nee naa la suñu boroom da koy def nee naa la awliya yi dañ koy def rasulullahi mi ñuy julli ci moom sax yàlla daf koo julli la ci boppam muy nag ab secret boo xam ni wax nañ ni ci juróom-ñaari kanoy adduna yi ci la bokk adduna dafa am ay kano yu ko téye yoo xam ne juróom-ñaar lañ euh, yooyu nag dañ ko nëbb ndax ci sirru sirri yi la bokk waaye dañoo wax ni juróom-ñaari kanoy adduna yi bi ci nit ñi mën a dundee mooy kanop salaatu alayhi ndax dañoo wax ni ilhaq tax waahidan iftax lakal abwaab benn buntu bu nit ñi mën a jaar àgg ci seen borom moo am ci àdduna mu yonente bi am ñoo xam ne nag nee nañ buntu ba caabi di koy tijj mooy julli ci na ñeneen ñi nag di door a dul farata loolu secret la bëgguma cee dugg de trop waaye salaatu ala bi daal duñ ko fi bàyyi fuñ jëm yóbbaale ko ndax fa ñu jëm moo ñu fa yóbbu. macha allah jërëjëf ci leeral bu am solo bokk na ci tam beneen bi ma bëggoon a duggaat rek mooy est-ce que tey jii ab jullit war naa ñaan. wala mu dem ci keneen ku koy ñaanal te koo ko ñaanalee wu yàlla ay franc-maçonnerie wala muy dem di ay xam-xam yu ay fétiche est-ce que war na ci julli. xam nga jullit moom am na droit jóg dem ci nit am lu mu sàkk ci moom ndax it daa am fu ñu yàlla yelloo ci suñu biir ñun nit ñi ak jullit am na droit. dem ci yéefar fajoo fa mu faj ko ba wér mu ñibbi si waat loolu mu doon du dafaa dem sàkk ju wér bu ko demoon du wér te bu fa leeree nit bu fa demul day deebu dee daa xaru te xam na ko faj kasaalika ci yenneen waaye nag daa ñu xaraamal ci moom ñu xaraamal ci moom nag balaa jub jëm fenn baa war a xam loolu loolu rek lañ ko moytuloo waaye yàlla néewul kenn nit na moytu kenn nit ndax nit ñëpp yàlla lañ boole bind te da koo def ay kuréel ñuy gën ko ñuy weddi ko ñuy def ko nii wax na yonente bi ne ko lakkum diin ko wala diin kenn ku nekk na yéen ci diinam te maandi waaye comme danga maa laaj loo xam ne adduna bépp koy dégg dama la ci tontu li nga xam ne mooy dalil bi gën a wér mooy ab jullit am na droit sàkk ci yéefar dara loolu nag lu mën a doon moom ma koy sàkk ji moo ko xam waaye ab jullit daal am na droit jëflante ak yéefar baay taala. incha ko nuyu jërëjëf euh, sëñ Talla kàddu yi am na solo xam naa ne jëmbul dina ñëwaat ak yeneen liggéey fi nga doore noonu sax man fa laay duggee ñu jëm ci wàllu fétiche lan mooy différence bu fétiche ak kii ñaan ci yàlla maanaam kii ñaan ci alxuraan moo xam ne tudd na ko ñaan ci wërd ak ñaan ci xaatim ak tëju ak wàllu fétiche lan mooy seen diggante ak nga leeralal ñu xam-xamu fétiche fan la jógee. waaw xam-xamu fétiche euh, li ci ëpp ci ay junne la jóge junne yooyu yëpp wax naa la ay malaayika ñoo leen ko jàngal mooy xam-xam bi ñuy wax xam-xam mu njabar euh, wax naa la ay bi ko wax ne la suñ borom dafa yónni ñaari malaayika ñu ñëw ñu cëpp ci kaw suuf sii jàngal ko junne yéefar yi ak nit yéefar yi fi nekkoon ñoom ñoo ko bëggoon jàng ko xam ko lañ cay la cay màgge nag mi ngi mel ni téere bu wàcc rek fekk fi ay doomu aadama ñu saraaf ko mu gën a yàqu ñu ñee ko sara waaye téere bi daa am fu mu wàccee xam-xamu fitis nag bii nga xamante ni si nii mi ngi daw ci àdduna bi daan circuler ak suñu woon senegal waaye façon jëflante yi ma gis Sénégal yi di ko jëflante moo xam-xam yi ma xamoon bitim réew tamit xam-xamu fitis yu dansé yi moo fi nekk léegi. Ah, lan mooy lan mooy différence bi. waaw lan mooy différence bi moom amul lenn lu mu yàlla. amul lenn lu mu yemal ñu yàlla yemut ak kenn bind ñëpp noonu la alquran yemut ak lenn lu yàlla bind dafa fawfa lépp ni yonent bi gënee ñëpp itam noonu la leer bi yàlla muddee lépp dafa tolluwut ak dara moo tax boroom xam-xam yi nga xam ni ñoo ŋànk adduna bi bu ci génn féticheurs yi ci lañ bokk de bu ci génn ahlu kitaab mooy ñu xam leer yàlla ci lañ bokk waaye dafa am ku ci dominer rek te mooy toujours ci ànd ak suñu borom waaye nag xam-xam boo gis am na dalil am na cëslaay am na lu man am na lu muy def moo tax nit ñi wuti xam-xamu fitis bul dégg baaxul ji ba nga jàpp ne du xam-xam ab xam la bu baaxul ndax moom lañ jabaree yonent ba téye ko muntu fitis boobu mooy mooy xam-xam bu ban boobu noonu bokkul itam nag ni xam-xam bi am na lu ko ëpp doole lan moo ko ëpp doole mooy leeru yàlla ndax alquran dafay nelaw suñu borom bi ak leeram ki nga xam ne ci la basé wu moo xam dafa yor tur yàlla wala moom dafa amee ay alxuraan yi ko suñu borom tàggatal boole ko ci ay rawxaan ba mu koy liggéey kooku yamatu ko fixeur yéen ñoo féticheur ndax bu féticheur bi drapé moom moo koy réglé moo koy teg ci yoon loolu la yàlla ci xam-xam boobu waaw sànq moom la ñu ngay fekkee ambiance bi ni muy mel par rapport ak sëriñ yi nga xam ne da nga leen di fekk nga dem nga fekk fa ay téeméer yi te wax nañu ni xam-xamu fétiche lañu yore ndax yow li nga xam ci xam-xam boobu li nga jot ak li nga jot a xam ndax jàpp nga ni la ñuy tuddee xam-xamu fétiche ñu ne ci Sénégal te ñu leen di woowee ay féticheur ñu dajale ay mbooloo yu bëri ba nga foog dañu war xam-xam ndax xam-xam boobu ak bi ñu seen communication boo koy déglu. man xam nga dama sukkandiku ci communication damay sukkandiku ci ci exactement li nga li nga li nga wane ma gis ko parce que li ma gis nii ñu installé ko. wane wax ci seen i làmmiñ yi loolu moom mooy xam-xam bi doon sax bokkul ci xam-xamu fiis wañu xonko yama gis ñu takk ko béjjën ñoom solal gaay ak yooyu ak noonu dox leen sigaret ñuy tox loolu dafa sore ak xam-xamu fitis ndax xam-xamu fitis en réalité am na lu ma ci xam ndax gëstu naa ko huit def naa bene ci vodo yi yor turu yàlla ñoom ñu yor ay xam-xam yoo xam ni fii ci senegal maa ngi lay giñal ci yàlla gisuma ko xam gisuma ci ku ko xam xam-xam boobu. yaa ngi koy wuyoo fii xam nga lu ne lañ ci wuyoo fii ci réew mi mais dafa taxul mu nekk dëgg te ñun dafa am lu ñu fi indi mooy dañoo ñëw présenter li nga xam ne mooy réalité man système bi àdduna bi ñu doxee ëpp ma ndax dem naa fu ne tey ci biir laa bokk ndax cadre yi nga xam ni ñoo ŋànk àdduna bi damay jëflante ñoom ci xam-xam. yaa ngi dégg nii fictice yi nii franc yi nii ñeneen ñi dama ne woon corps boobu dinaa ko leeral ba nit ñi xam ko parce que bari na Sénégal yoo xam ni li ñuy leeral ni loolu moom la ñoom dañoo bokk ñu nax xamuñu ko yaa ngi dégg nga xam nga ni xam-xamu fictice bi nga xam ni nit moom lay def ngir am alal ñi koy présenté fii yore ñu bara te ficticeur bi dafa war a doon milliardaire comme ni mu koy defee gars yi mooy xam-xamu turu yàlla bii tam ngay dégg fii sëriñ boo gis amul lum lekk amul lum naan yorul dara dafa xamul dara li nga waxul ko wax bi dama ne koo gis amul lum lekk amul lum naan yorul dara dafa fii ku xam dara am dara man sama am am ba ci nit liggéey fii ma toog jubu ma fi te lu ma soxla ci xaar dama koy manipuler waaw foofu ma jox moom mel ni li ko xam nga seen yow seen mbir dañ ko war a xoolaat parce que Mouhamed wax na ko dama ci dellu si yow kenn du ñëw fi ba fekk ay ay nit te macha allah ñi gën a fekk ci sëriñ si bari bu dee am na fu ne yaa koy tukki sëñ bi lan yow looy liggéey ndax turu yàlla yi la dafa am ñu lay xaalis ay jinne la wala dafa am ñoom lëkk la wala la waaw junne yi moom euh, nit da wax dëgg am na lu ma ci xam lu bari waaye xam nga ñoom it seen adduna dañ koo nëbbu. <laughs> nga doo toog ci doo toog di ko feeñal yaa ngi dégg. waaye man damaa yor ay bagages yoo xam ne ay bagages yu leer la. lu jëm ci ismulahil azam dama cee ami mbóot te itam au fond mooy dafa am ay nitu yàlla yoo xam ni dañu ma déy ci mbir yaa ngi dégg. nekkuma rek benn sëriñ boo xam ne maa bëgg a rek doonub sëriñ doon ko li ma doon dañ ma koo def li ma rek dañ ma koo dénk muy loo xam ne dafa war a continuer ci génération bi amuñu loxo yuñ ko bàyyi yu ñu wóolu ñu wóolu ma teg ko sama loxo yaa ngi dégg ni ma boo demee ci samay mbokk daanaka ñoom boo leen laajoon sama dëkk mënuñu koo xam ne kër gii bët fii nga ñëw fii mën nga ñëw ba ci bunt bi doo am accès dugg ci biir te man du war a téye loolu bagage suñu borom la rek noonu laa ko gisee saa yi. am na solo Mouhamed xam naa dañ dañ lay bàyyiwaat a ñu doog a euh, am na loo loo bëgg indiwaat. waaw waaw sooy bu man euh, ci wàllu jinne yi. Mhm. sëñ bi nag foofu foog ñu taxaw ci tuuti ndax bàyyi. Mhm. jinne yooyu dañu bëgg nga ko ndax ni mu ko waxee am solo loolu. Mhm. sëñ bi bu dee da ami jinne. leeral ko nit ñi xam bu dee it macha allah ñoo lay ravitaay ci wàllu koppar Eh, sunu borom moo ne eh, maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun kay mooy bind nañu jinne ak nit ñi dul nañu jaam. jinne yi ñoom comme nit ñi rek eh, ku ci nekk da ngay loolu nag foog nga leeral ko nag sëñ bi parce que macha allah sunu borom maanaam jàppuñu la la te teral nga googee ni mu ko waxee sooy bu ak sama ak sama bu am solo la yi ma. waaw bu dee jinne yi moom li ma ciy dimbali man. ñu ëpp ñoo xam ñoo ñu ma ciy defal dara ma maanaam jinne yi ñëw ci man ma leen di dimbali comme ni may dimbalee nit ñi maa ngi lay giñee yàlla moo ëpp ñu ma ciy jëflanteel loo xam ne sama intérêt la ko ci ne ndax man damay dàq jinne comme ni nit di ñëwee ci nit nga dàq ko noonu la ma jinne di déranger ma ni ko génnal waaye nag dafa ma am ay xam-xam yoo xam ni nit du ko xam di ñàkk day wax bi lu ñuy wax sarax yor naa ci loo xam ni su ma neexoon ma ak yow balaa vingt et jours loo soxla am ko te dootoo ko ñàkk. Ah, yaa ngi dégg waaw <laughs> ah, loolu nag ay bagage la ndax itam néew na tey jii suñ changement bu ñëwoon ci man dama ñaanloo te li may wax nii leer na yàlla mooy sama seede saraxam bu ma ko xamul bu ma tëddee ci guddi rawaxaanu soin bi dina ñëw ni woon nàngam ak nangam nangam mooy sarax bi ma soxla ngir mbiru soin bi ma nekk nit it dina ma woo téléphone di ma ñaanloo te moom mi ma woo dafa gént ñu wax ko li ma koy ñaanal ba pare dafa moom moo ma koy wax ma ñaanal ko loolu su doon da ubbi téléphone yi bari nag client yoo xam ne dañu may gént wax ni ma ñëw dañ maa boole yow ci gént ni ma nga defaral ma nangam sangam nangam wala loolu daal li ma la mën a wax mooy samay mbir Mohamed loxo dina nekk ci loxo mi nekk ci yàlla na sax moo may manipuler ci système bi. bi yëngu chaque jour ñu dégg bàyyi ba rey ren na doom kee pandar mu takk na boppam ci bunta baax paapam kii rey na doomam kër taximan ba fetal nan ko nit ñi di reyante comme pas possible ci Sénégal am nañu ci jotoon laaj ci ay féticheur ñu ko doon laam-laamee sànq ñu ne ñu euh, ak dafa am jinne yu bon yuy def ak naqar ak xol bu métti ci nit ñi moo tax ñuy jëfante lool am na ñu ne euh, foofu nag sunu kilifa yi di bàyyi di jëfandikoo jinne yu soxor nga xam te après dañuy retourné ci askan wi te buy ñëw ay bi ñëpp lay léegi loolu yow mën nga ko dëgëram de. waaw kilifa yi daal euh, ñu ngi ci seen bopp askan wi nañ yeewu réew mi kilifa moomu ko ab citoyen moomu ko ñun ñëpp a ko bokk kilifa gu ne jaar na fi faatu citoyen bu ne jaar na fi faatu waaye nag euh, mbir soo ca nekkee da ngay jëm xam lu mu doon. Sénégal du réew moo xam ni waya waya dafay nekk rek am fi leen bëgg Sénégal du réew moo xam ni ku ñàkk fayda dafiy dëkk Sénégal dafa am lu fi nit di dëkkee actuellement nag système bii ak génération bii dañoo xaw a bañ a maîtriser mbiri réew mi yaa ngi dégg réew mi du loo xam ni daña bàyyi njiit rek ñuy doxee ni leen neex non loolu du demee noonu waaye jafe-jafe Sénégal moom am na lu ma ci xam man nag damay koo xam ni su équipe dafa bari ci man du ma développé lu ne ndax dañ ma dénk yu bari waaye daal am na yu ma ci xam te maa ngi cee wax ak gars yi ma ci war a waxal dégg nga seen sonal. parce que daal li fi nekk ñu wax nii gars wax lu tax mënoo ko leeral. taala yooyu itam euh, benn question rek que dafa mel ni waxtu waa ngi waaxu. Mm-hmm. ban nga amat booy macha allah gis ne rek fi mu toll wax dëgg yàlla ba ci suñu xale généraux yi bu yàggoo rek ñu ngi gis sëñ Mountakha Mbacké ñu ñaan mu yàgg fi loolu téwér mbooleem xarit généraux yi di wax naan na jul dem tuubalaat yàlla suñu borom nanu jàng alxuraan ngir waajale ko safara bokk na ci tey ji jullit bi dëgg naka la war a tuubale yàlla suñu borom parce que Cheikh dafa mel ni gaa ñi xamuñu sax ni ñuy tuubale yàlla maanaam bu yoosu wax sax pour laa sax pour laa maanaam yu yu teel a teel quoi te tuubal yàlla dafa naa ne war na am benn niveau bu mu war a toll boo xamante ni fa la tuubal yàlla toll daal waaw tuubal yàlla mi ngi commencé ci ragal yàlla mu ngi yem ci doyloo wakil istixfaar dafa am fu mu lay yóbbu rek waaye bala ngaa taxaw di salo istixfaar dafa am melokaan yu war a mel ba pare mooy nit ñi ragal ko yàlla fii ci réew mi waaye nag eh, déeg yi ngay wax moom ci réew mi mu am fi te kilifa yi di ko dee nit ñi di ko faatoo loolu day gën a yokk waaye la wàññi ko léegi de waaw ndax li koy dindi defaguñ ko maa la ko wax dama dégg yi nga dégg kilifa yi di ko def takki masque soli kaba ci yam dégg moom wàññi ko wax bi mm-hmm. te it nag baa doole yeeg way ñàkk yi faatuñ de ñeñ yaakaaroon ne duñu faatu ñoom ñëpp mën nañ leen a suul ñun ñu yëru dara dafa am suñ tax suñ borom defee noonu fii génne wuñ suñ nag ci loolu xam nañ ñu ci gën dañ ko waxagul waaye bis génnewul suñ bopp ci loolu moom kilifa goo ko gis mu tekk dara jàppal ni balaa deux mille jeex moom mën nañ ko suul fii ak décembre hmm. li xew bareegul lu ne dina xew loolu man maa la ko wax te xam naa li ma wax bu baax baytaan loolu ñu dëggaat naa la ko. muy ab lim xëy na juumul di ñëwal ci lim lu muy loolu itamit euh, maître El Hadj Diouf bu yàggul yëkkati na fi ay kàddu ci màggal Tuuba wax ni sax dañ ko waroon a dakkal wala dañ ko waroon a bañ a amal wax ni moom sax taalibe waaye du màggal ndax ko bi bi nga déggee loolu en tant que taalibe waaye en tant que citoyen ci wax jooju nan nga ko déggee nga doog ñoo ñëwal ci lim bi président Sall ci wàllu nag euh, sarax. Euh, xam li mu yor dafa jóge yi da tax nitu yàlla a doon seen am naa nag waxi métti bi. suñu état noonu la sëñ taxaw nga tontu moom satisfaire wu. jiitum réew la nga yor ci yàlla la jógee lu mu kii da nga ciy loolu lan la c'est-à-dire président de da nga cee wax. wala nga bu dee réew yàlla la ko dénk. mu am jafe-jafe. ñu hmm. fas yéene koo saafara bay defi sax. pour hmm. benn saafara bu daf koy dàq. genn ginaar sax bu ko jëlee dafa am lu mu umpale ci boppam jëlul murid yàlla mi ko sàkk hmm. loolu nag fii ak dana la réere rek dooy wax. ci diggante taal bi ak sëriñ bi da nga ciy lool ci sëñ ko génn ndax foofu amul ñu fay génne ko doole def ci sëñ bi tayuñu bi def ci ñoom sëñ bi nga wax murid li ñuy def ci sëñ bi tayuñu ko waaye li sëñ bi def ci ñoom murid li sëñ bi tayu ko waaw loolu nag boo dee nit ku yem ci nit da nga koy yem ci ñëpp yem décision màggal ak bañ a tuuti na ci làmmiñu Maître El Hadj bi mu koy jël ndax du kilifa yu murit du kilifa yu yow. da loolu kenn amul loo ci wax ak moom moom benn citoyen rek bu wax gis-gisam waaye gis-gisam boobu nag dafa concerné ab indi boo xamante ni si dañoo am ku ñuy di ko xool di moom dafa waroon a déglu comme ñëpp ndax taalibe la comme ñëpp waaye taalibe du décider. ci loo xam ne foofu foo dana loolu yërëm nga jërëjëf euh, Cheikh Ibrahima Ndiaye borom alxuraan wala alxuraan dafay lépp benn ñu gërëm Mouhamed dañ ko bàyyi mu tàggoo suñu taal dina tàggoo Mouhamed nag bokk ci ndaw yi Sénégal yaakaar ëllëg comme ni ma koy waxee ci euh, Pape Djibril Fall bu TFM moom kenn la ci ndaw yi nga xam ni yaakaar réew mi la ci wàllu journalisme Mohamed lan ngay tàggoo xam naa jombu jotaay bi dinañ amaat deuxième partie ba trois heures jàpp cinquième partie. incha allah jërëjëf Soye bu yooyu itam ñuy rafetlu sa liggéey ndax yàgg nañ ne euh, dégg te jëm ñu gisuñu ko waaye tey ñi euh, bi dajale tey gis naa ne mbégte na waaye moom it di gërëm ci épreuve bi mu nangu parce que itam. Euh, ku ci nekk ci gaañ yi mel ni moom bu ñu ut seen euh, laajkat rek bindal leen ay laaj ñu leen ñu leen di laaj ñu tontu leen neex waaye dajale ñetti nit yi yàgg ci mbir mi muy yow ak euh, sëñ Moussa mi ak ñu koy laaj ci ñuy tontu te laaj ñu koy ñu ko laaj de façon spontanée loolu itam mérite la gaañ nag yaa ngi naan bu ñu bu ñu bu ñu sàcc concept waaye bu ñu ñemee nañ def ni moom. waaw ku ñam ku ñam waaw. macha allah waaw sant tey gërëm rek ñaanalaat ko moom itam bu baax a baax suñu borom doole ko taxawu te gën a guddal aw fanam ndax lii mu def itam jot na waaye lii mu def it man li may faral si biir saa su rek ci suñuy jotaay maag moom mooy fonk bu mu fonk doomu aadama ndax xam cër bi suñu borom cërale doomu aadama laata nga koy am na lu ma la ci waxoon ne la buñ leen waxtaan ba jóg te du la du génn cadre boobu ñu ngi lay delloowaat yow yow doomu aadama ñu ngi ci sa bopp ñu ngi lay ci sa borom di la xamal ni nit ki mënalu la dara mënu laa defal dara ki la a yëpp mooy suñu borom soxla rek kon kon yàlla moom ko sama borom bàyyi ko fi gën ko taxaw euh, li nga xamante ni ñu ngi koy ñu ngi koy soññu askan bi sama borom def ko ci lu kawe jotam waaye itam sant bu baax a baax mbokk internet yi nga xamante ni ñoom ñooy topp di suivre saa su ne ci ci ci réseaux sociaux bu mu ci mën a doon kenn ku nekk tam ñoom la fa nga nekk te sa bëgg-bëgg ak seen yow kenn yàlla saa borom jàpp a baax saa borom doon leen a a yokk ndombal tànk yi euh, ak euh, mboolem équipe bi nga mooy euh, les hommes de l'ombre ni ko gars yi di waxee daal macha allah sant nañu baax a baax. jërëjëf aywa mi ngi noonu Serigne bala moo tàggoo moom it nag ñu am lu ñu leen téye beneen yoon bu ñu ñëwaatee dinañ ci xuus ñu teggi moteur ak teg moteur ci wàllu kàttanu góor sëñ bi da cee am lu doy loo xam ne nee na da nga mel ni nga teggi moteur tegaat beneen moteur loolu dinañ ko leer sëñ bi lan ngay tàggoog internet yi asiw sant yàlla nga xam euh, bi dañu ne jóg ngir jëriñ ñi ñu leen di liggéey ñu leen di ñeel nag ñu ñaan yàlla suñu borom ñu leen mën amin waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nii la demee tey fii ci kër gi ñëw fekk su ko fii ci këram ay numéro téléphone mi ngi doon di affiché ci barre écran bi yéen ñi nga xam ni leneen li ngeen dégg ci waxtaan yi sax bu ngeen ko wooyee da ngeen dégg leneen lu wuuteeg lii ndax ñaari di ngeen dégg ci waxtaan am naan am na loo xam ne du waxu télé du waxu écran sant leen gërëm leen gërëm Abdou Top mi doon réalisé émission bi ba beneen yoon incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu